mbokk yi jaa ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm ci xibaar yi nga xamante ne ni dañ koy tënk eh, ci leeral média leeral TV eh, comme ni ñu ko doon defee rek fan yële ñu weesu ñu dikkaat lépp loo xam moo jëm ci wàllu xibaar yi gën a fës ci leeral. mbokk yi dalal jàmm ci weeru koor gi daan leen eh, ramadan mubarak suñu borom def jàmm ak xéwal yàlla nangu ñaan yépp ñu àggali ko si alhamdulilah rabbil alamin suñu biir réew suñu borom def fi jàmm saxal ko fi rawatina ci wote yi nga xam moom la ñu dërmal yàlla na euh, suñu borom xëpp ndox mu sedd guy suñ bi réew di suñu gaal léegi nag la ñuy tàmbalee xam ngeen ko moom mi ne Ousmane Sonko xam ngeen ne caabi dafa daal di féete ginnaaw ay weer a ngi nii euh, kon ci diir googu yëpp lu jëm ci wàllu lii di casier judiciaire wala bokk lépp loo xam dañ doon ko doon toppee moom mi di Ousmane Sonko njiitu Pastef ga woon fi mu nekk nii setal nañ ko wicc maanaam daal léegi ndoddam set na euh, kon lépp loo xam moom lañ ko daan tuumaal daan nañu seetal lépp euh, teggil ko ko li ñu mel la ko sabab mooy li ñu woote lii nga xam moom mooy loi d'amnistie foofu euh, ci fi nga xam moom mooy assemblée nationale euh, kon tamit moom Ousmane Sonko lépp loo xam ne dañ ko ko gàkkaloon maanaam daal teg ko ci ndoddam mu jëm ci wàllu daan ci li nga xam ne moom mooy mbirum Prodac xam ngeen ne moom la sekkaloon ak ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang bañ tegoon ko ay daan moom la di Ousmane Sonko léegi nag moom meeru Ziguinchor loolu lépp nga xam ne moom lañ ko tuumaaloon daal nañ koy teggi ba mu daal di set wecc lu jëm ci wàllu loi d'amnistie googu ñu daal di euh, voté bu ñu jógee ci loolu xam ngeen ne jamono ji ñu ngi ci biir lii di campagne électorale mbër yi ku ci nekk rek ma ngay dem fa mu xam di waxtaan ak askan bi di diisoog ñoom lépp loo xam moo jëm ci ay bébétam bu buñ ko falee mu nekk njiitu réew fii ci Sénégal ñu jàpp ko ñaar fan ak ñeent ci weer bi ñu nekk yooyu la wote waaye lii di campagne gi le ñoom candidat fu nekk ñu ngi fay wër ñu ngi wër Sénégal gi yëpp rawatina waa République des valeurs ñu ngi amal campagne foofu la ca mu mbuur ñu amal euh, visite de proximité maanaam daal di dem di nemmeeku askan wi di dem di toog di waxtaan ak ñoom. rawatina li jëm ci li nga xam moom mooy programme kii di Thierno Alassane Sall bi nga xam ne moom mooy njiitu. république des valeurs mu nekk mbër ci watem njiitu réew mi ñoom ñi nga xamante rek ñoom ñooy ay naataangoom nekk foofu ci diwaanu Mbour ñi ngay fexe wax ak askan bi maanaam daal di leen baab di dox ci seen xel di waxtaan ak ñoom lépp lu jëm rek ñu bàyyi xel ci programme Thierno Alassane Sall buñ ca noppee mbokk yi lii nga xamante rek moom mooy service de passation de service boobu foofu ca makkaan ministère bi nga xam mooy wàllu jigéen ñi njaboot gi équité ak développement communautaire xam ngeen ne yooyu leen ndombal tànk moom mu mat ci euh, ñett ba ñeent ñu ngi ko daal di dénk soxna si leen di Thérèse Faye Diouf léegi moom moo euh, daal di rek euh, gàlloo yooyu la service de passation de service boobu foofu ca makkaan ministère bi nga xam mooy wàllu jigéen ñi njaboot gi équité ak développement communautaire xam ngeen ne yooyu tànk moom mu mat ci ñett ba ñeent ñu ngi ko daal di dénk soxna si leen di Thérèse léegi moom moo euh, daal di rek euh, gàlloo yooyu la euh, te itam moom Télé Faye Diouf gannaaw biñ ko doon na jébbal yooyu la lenge daal nay gërëm bu baax a baax moom njiitu leen Macky Sall bi nga xam ni moo am qualité ak yaakaar ci moom dénk ko lu ni mel te itamit moom Télé fay Diouf ne na ci liggéeyam jii ñu ngi ko dénk dana def kenn kàttan daal di jàppale soxna yi rawatina soxna yi nga xam ñoo nekk ca taax di daj ay coono yu metti ñu fexe ba jàppale leen ci seen yëngu-yëngu ngir ñi daal yéeg seen bopp bu baax a baax ci biir réew mi waaye tamit koor gi xam ngeen ni ñoom doon naa ko wax sànq gannaaw bi ma leen doon ñaanal jàppal ma jàpp dafa xew ñii di defar ay café Touba ñii di joxe ndogu ñi nga xamante ni dañuy génne seen gafa di dimbali ay doomi aadama weeru ndimbal la weeru gestu ñi nga xam seen loxo jotu seen ginnaaw ba tax na ONG wala boog mbootaay bu ñu tuddee Direct Aid Society génne na lu toll ay ndimbal yoo xam jébbal ko ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay kër maanaam ay njaboot jàppale leen saali yu ndogu jotee ñu am lu ñu mën a xewloo fii ba koor gi di jeex ñooñu la ñu ngi leen ko doon jébbal foofu ca Castor nekk commune bu jëppal Derklé euh, kon Direct Aide Société ñoo daal di jëfee lu ni mel ba tax na rek mbokk yi euh, ci wàllu euh, koor gii ñu nekk waaye tamit am na màggal goo xamante nañ nga amal ak bu yàlla sàkk fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril muy ndajeb Serigne Saliou Mbacké moom it radiyallahu taala anhu ak i tamit kii nga xamante ni mooy ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune ñu ngay amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril euh, foofu ca Medinatu Salaam moo tax ba maire Malicounda di Maguette Sène daal dinay dem foofile ca Medinatu Salaam bi nga xamante nii dañ doon waxi ne doon dund ay jafe-jafe ndox di xool ba xam jamono ji jafe-jafe yooyu daal dinay dañ ngaata ñuy jëm ci màggal googu waaye itam ci cant gi moom màgget seen nee na dana def kenn kàttan daal di euh, taxawu ñii di waa Medinatul Salaam ci màggal googu xamat xamante mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weer avril mu di taarix fii ci biir réew mi ndajëb Serigne Saliou Mbacké ak Cheikh Béthio Thioune ñu daal di wax tamit fukk ak juróomi million ci suñu ay koppar FERA nekk benn mbootaay boo xam moo yëngu ci wàllu dem bekk dikk bi di fonds d'entretien routier autonome daal nañu dimbali waa Linguère bu Saint-Louis Linguère bu Saint-Louis xam ngeen ne ñu ngi fubal championnat bu Sénégal fi mu nekk nii ñoom euh, pour ñu nekkaat ci kaw nekk na loo xam lu jafe la ba tax na dimbali nañu lu toll si fukk ak juróomi million ci suñu ay koppar muy franc CFA. boobu la cérémonie ci teewaayu euh, seen président di Amara Traoré ak ki nga xamante moo bokk ci boobu la mbootaay di FERA daal wax tamit fukk ak juróomi million ci suñu ay koppar FERA nekk benn mbootaay boo xam moo yëngu ci wàllu dem bekk dikk bi du fonds d'entretien routier autonome daal nañu dimbali waa Linguère bu Saint-Louis Linguère bu Saint-Louis xam ngeen ne mi ngi fubal championnat bu Sénégal fi mu nekk